damay rafetlu performance yi nga xam ne tamit dama ko gis ñu koy dawal ci Sénélec ndax je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe euh, dañu fi nekkoon kuy xam bëri fi lool ñu gis ne ay jéego yu am solo am na fa lu mel ni stabilisation de l'office euh, de l'offre de production euh, ak avec la mise en place de solutions rapides économiques de la barge ñu gis ne modèle la modèle boo xam ne tey pays nekk sous région bi sax ñu ngi ñuy copier ku mel ni Côte d'Ivoire kon loolu dañ koy rafetlu di rafetlu également ni ñuy defee ay jéego mu gën a baax pour l'accès à l'univers à universel à l'électricité loolu dafa nekk fi mu nekk lu ñu mën a dut baaxam te mu jéego boo xam ne Sénélec mu koy teg ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax ndax gis nañ ne fi mu nekk gox-goxaat yu bëri tey am na électricité bu ñuy fàttaliku 84 la ñu jóge ci dëkk yu ñu électrifié te bu ma fi mu nekk ñu 489 wala lu village électrifié madame la ministre les performances techniques amoon un problème côté technique Nous ñu gis ne euh, euh, kuy xamat bi wàcc wàcc wàññeeku na bëri bëri bëri euh, parce que avant président Macky Sall di y amoon 911 heures de coupure maintenant, il y ci moins de 24 heures par an kon loolu dañ koy rafetlu bu baax di également tamit Diego euh, yi ñu plan sur le plan financier parce que dégg naa les syndicalistes ñu ne te Senelec y a 20 milliards Donc, l'autre, tamit madame la ministre nous nous ci félicité bu baax a baax Et ci ak tamit la politique sociale ñu ngi suivre li ngeen di def jàppale école yi jàppale néew doole yi jàppale également euh, côté santé bi bu ñu la félicité ci en tant que ministre day également tamit félicité ki nga xam ne moo jiitee Senelec muy doomu Kaolack ñu bokk Kaolack ma gis la muy liggéey askan wi gis li ñuy liggéey président gis li muy liggéey ci wàllum social ci wàllum euh, taxawaay leadership ak indi style bu innovant ci management Senelec kon moom tamit muy pas Demba Bitèye dama koy sant muy fierté musuma dem bureau nag mais liggéeyam lañuy rafetlu ak style bi nga xam ne moom la indi ci biir Senelec